boobu est-ce que tamit du nguur yi fi jaar yëpp dafa am fu ñu lajjee def nañ ci ay milliards gas ay canal tuyau li muy wax réservoir xaw ma nu ñu koy turee bassin de rétention mais ndax li ñu war a def def nañ ko dëggantaan fa nga xam ni dañ fa dëkk te war ñu fa dëkk <coughs> ñu am courage wu ndàmp ñooñu yëkkati leen jox leen feneen ndax du solution bi structurelle bi ñuy laaj nii <coughs> loolu la finalement. Euh, mbiru euh, ni ñu sancee réew mi mm-hmm. fekkee mën nañ ko waxee noonu ci wolof mm-hmm. mbiru aménagement territoire mooy problème foofu dañ koo lajj depuis le début depuis le début te boo seetee ba seet euh, seen table bu xumb bi xaw ma nu ngeen koy gisee mais dama koy wax carrément quelque part mm. ci temps tubaab yi ñoom doon nañ ko régler affaire aménagement territoire ñoom doon nañ ci xalaat bu baax ah zone bu nekk ñu wax lii lañ fay def fii kenn sañu ko def lii fii kenn sañu fa def lii ba ci Saint-Louis par exemple boo demee da nga doon gis ne bu defoon na benn arrêté ci temps yi mu fa nekkee wax ne fi nga xam ne yëpp dañ inondé actuellement ne bu fa kenn dëkk zone non aedificandi yi mhm. mais après bi nit ku ñuul ñëwee ci waxin euh, ak suñuy mbir ñun mhm. sama mbokk la sama xarit la euh, sama doomu sëriñ la mhm. et cetera ñu bàyyi nit ñi toog mën bi ñëw fa ñu yuuxu donc euh, problème mu Euh, décision politique yu mmh. sérieux yu ñu waroon jël ñu bàyyi ko négligence yooyu di dajaloo euh, plus aménagement territorial ba dañ ko sàggane woon trop ci suñ politique de développement yi euh, bàyyi nit ñi ñu jóge ci kaw ga surtout sécheresse su année soixante-dix yi mmh. ñu bëri ñu bàyyi leen ñu ñëw bi ñëwee di wut si fii liggéey ñu bàyyi leen tam ñu sanc dëkk ci anam yoo xam ni yoonu ndox la te ndox bu ñëwee kon liñ koy waxee rek day jaar ci euh, yoonam mm-hmm. après euh, def nañ alal bu bari quand même il faut le reconnaître euh, surtout temps wu mandat wu président Macky bi def na alal bu bari def nañ aussi ay infrastructure c'est vrai ah boo demee am na côté yu bëri yoo xam ni mu doon mel ci yeneen mandat surtout ci temps wu Ablaye Wade xaw na wàññeeku mais quelque part daal man daal j'ai l'impression que am na problème cohérence d'ensemble maanaam que lépp mën a joxante ba lépp mën a yiiw euh, am na euh, ay problème léegi nag est-ce que gouvernement bi nekkul di piloter seul cette affaire la mm-hmm. alors ko dafa war a associer euh, voilà par exemple des architectes mm-hmm. les urbanistes et cetera et cetera loolu yëpp tamit question bu ñu war a poser la mm-hmm. ak tamit comme ni nga ko waxee certaines décisions jël ko lu mu metti metti jël ko te na am rek lu ko justifier que ni li intérêt public la moo tax ñu def ko ñi ñu war a dàmp comme ni nga ko waxee ñu dàmp leen parce que tey yaa ngi gis ñu jël alal bu bëri di ko politiquer di ko euh, def fële def fële alors que lii nii avenir dëkk bi yëpp daanaka ci la euh, ci la dépendre donc daal yooyu yëpp mu ngi ci vraiment c'est un débat public euh, urgent bu ñu war a bu ñu war a waxtaanee alors Pape Djibril ni nga waxee pour l'urgence deux milliards deux cent